Parcelles Assainies ñu ñëw euh, fekk nañ fi euh, surveillant yu doy euh, fekk nañ fi tamit organisation boo xam ne wax dëgg yàlla kenn mënu cee wax dara ndaxte ku yore examen bu amee solo ni examen formation professionnelle nga war cee mën a def énergie bi ci war pour er, examen bi jaar yoon na ngeen jàpp rek ne ci Sénégal yëpp incha allah ñi nga xam ne ñoom ñooy examen toll nañu ci ñetti junni ak euh, ñeenti téeméer ak fukk ak benn te nañu jàpp ne am na junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk juróom-ñetti fukki jigéen loolu rek ndam la ndax jigéen ñi jàpp nañ ne seen taxawaay rafet na ci wàll formation professionnelle te bëgg nañu mu gën a rafet encore te li ñu bëgg tamit moom mooy bu ñu jógee fii dinañu dem ci yeneen établissement et dinañuy dem ba yegg ba Thiès sax incha allah pour xool naka la organisation yi demee te fii ñu juge daal am nañ ci satisfaction.